ci bett gi ñu bett ñëw fii te loolu du gulet ci yow ndaje moo dégg alxuraan wala ndaje moo dégg muy doxu mbokk da koy da ngay bett ñëw fa te loolu moom ah ni nga koy tudde sa bopp rek xaadimul umma ma fàttali rek foire bii sëriñ bi deux de du matin la jóg woo ma ànd ak man visiter ko ba 4 heures du matin kon loolu lu rëy la trop tey tamit lii ah dañ ko ko doon yëgal rek moom moo jógal boppam ne mi ngi ñëw te gis ngeen ko ñëw sans protocole yàlla na yàlla dal saw fan ñi ngi gërëm ñi fi nekk ñépp nag kon bu ma ko waxee rek daanaka jarul may tuddaat ñi ci des li tax ma dajale nag tey xam ngeen ne ah wax dëgg yàlla mbirum maire yi moo ma yëkkati tey jii waaye dama jàpp ne bala maa dugg ci benn campagne danaa woo nit alxuraan yi ñu jàng alxuraan jiital ci ñaan Sénégal yépp jàmm am fi ñaanal ñiy compétir ñépp ñaanal ma man mii ndax ñaan benn benn ñaan rek boo ko ñaanee ñépp mën nañ ko bokk kon loolu moo ñu moo moo taxoon ma woote kon alxuraan yi fi jàng 313 lañ doon wax waaye gannaaw bi sëriñu daara yi jàng nañ fi lu mat junni kaamil kon nag maa ngi leen di sant leen gën leen gërëm ndax alquran moom wa isa xaraqta alquran jaal naa baynaka wa bayna allazina laa yuminuun bil aaxirati xijaaban masuuran kon yaakaar naa ne am naa kiiraay gu mat sëkk ak képp ku fi nekk ak ñeneen ñi ko fekk ñëpp di wax rek ne xëy na soo ne dundal alxuraan moom ma tax ma dugg ci lii nit ñi danañ ko mën a gise leneen waaye dundal doomu aadama ndax a ah, yonent bi sallallahu alayhi wa nee na man la yahtam bi umurul muminina fa laysa minhum kon nag umurul na te gis nañ ne umurul muminina mbiri jullit ñi li ci ëpp doole tey jii ñun ñëpp ñu di ko wax mooy kenn ku ne nu sa doom mën a jàng alxuraan jàng diine jàng liggéey pour mën a tekk ñett yooyu boobu mooy li ëpp doole ci nit ñi boo leen laajee loolu la kon nag dañu jàpp ne suñ jógee di wut dara lañ ci war a jiital mooy njàngum alxuraan ak njàngum diine ak njàng ma ci warata moo taxoon ma ñëwoon tey doon leen présenté ne leen damaa gis ne ah sëriñu daara yi ay jàmbaar lañ waaye gis ngeen ko ni ko sëriñ ah, ah Abdul ah, sëriñ Abdou Aziz Touré waxee sëriñ Cheikh May wax ko sëriñ Mountakha wax ko ñoom ñëpp jaar ci daara kenn ku ne xam luy solution daara tant que jëlaatuñ daara dénkaat ko ñooñu daara du sotti mairie nag amul doole gouvernement waaye démembrement gouvernement la ñu ne buñ ko jëlee li ñuy bëgg a def mooy fexe ba dajale leen ñu dajaloo ci benn baat am benn baat boo xam ne danañ man taxaw taxawoo ko du pour xeex du pour revendiquer waaye pour taxaw am benn plateforme boo xam ne nii muy mairie muy état danañ leen mën a jàppale nit ñi tamit ñi nga xam ne nii am nañ seeni alal bëgg koo def ci yoonu yàlla ñu mën leen a jàppale muy wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tefaraxu loolu ci programme bi ñu njëkk a jël la ay ñeneen du ko jiite lu dul ay nitu daara waxtaane ko ak xalifatul am bii toog waxtaane ko ak ñépp ñoo xam ne nii ñoo bokk diine ji bokk daara yi te loolu incha allah dinañ ci am solution ñu def tamit ñu defal leen tamit wutal leen loo xam ne tamit ñoom tamit li ñépp di am ci seen àq wa yuti kullu si xaqan xaqahu ba nga xam ne ñoom tamit danañ mën a bokk ci programme logement yi seen document administratif yi ñuy am léeg-léeg di ko bolok nga bëgg a tabax daara wala nga bëgg a tabax jàkka muy jafe ci yow loolu maire bi day fexe toppatoo ko ba du du jafeeti ndax kat li ñuy def di jàngal nit ñi alxuraan di leen jàngal di leen yar loolu su ñëpp meloon na nit daara yaakaar naa prison ba du fees ku dem ci prison doo tuuti nga fay fekk du ñàkk nga fekk waaye doo fekk koo xam ne nii daaraa ko yar lu bari. def tamit dispositif formation boo xam ne ñu jóge ci daara suñ paree mën a jàng métier mën a dugg ci liggéey bi ndax kat daara mooy loo xam ne nii état bi investir ci lu bari te buñ paree ñoom ñooy liggéey ba pare di di di consommer loo xam ne nii mi ngi jëm ci nit ñi jàppale daara yi ak jumaa yi ndax jumaa joo gis daara la ndax dañ fay jàngale alxuraan dafa fa nit ñi pour ñu développer ay projet yoo xam ne nii ci mbay la wala ci sàmm wala ci agriculture wala ci élevage wala ci transport yoo xam ne nii dana mën a dañ leen mën a yor loolu su ku dem Maroc da nga ko fa gis Maroc lu fa nekk ci daara wala mu nekk fa jumaa am na économie bu nekk ca wet ga bu ko mën a yor fexe ba def benn centre de formation boo xam ne nii danañ jàngal sëriñu daara yi ñu mën a jàngale alxuraan te duñ sonal xale yi ndax jàngale alxuraan dafa metti ndax nit sax dana toog di jàngal boppam di bëgg a xam dara toog ba metti ci moom xamu ko sax mu dóor boppam kon nit dana di laal xale waaye defu ko parce que da koo bëgg a gaañ comme ni ko sëriñ bi waxee léegi daf ko def pour bëgg ko pour bëgg ko euh, euh, jàngal waaye am na yenn yoo xam ne nii nit ki mën na ko am patience ba dugal ci xale bi li nga xam ne nii moom la war ci moom fexe tamit. ba synergie bi nga xam ne moo am ci diggante école tubaab bi ak école kii bi tamit ñu xaw a am synergie ba nga xam ne nii xale yi ndax kenn ku ne comme li ma wax rek soo sañoon sa doom dana jàng alxuraan dana mën a jiite dana mën a takkub sëy dana mën a def lépp ndax ñu ngi koy gis ci ñi ñu yor tey fu ñu dem léeg-léeg dañ fay bëgg a wax alxuraan waaye léeg-léeg jafe-jafe jooju da leen di dal ba ñu yaakaar ne dañ koy yàq te xam te buñ jàngoon base bi rek du jafe ci ñoom ñu wut tamit. benn journée boo xam ne nii commune bi yëpp koy bokk ñu def ko journée récital de Coran jàng ci alxuraan jël euh, xale yi nga xam ne ñoo gën a góorgóorlu ñu ñu ñu neexal leen sëriñu daara yi neexal leen daara ja tamit ñu jàppale ko ndax daara ja la yoo xam ne nii gis nañ ne classifié ko mooy euh, def ko ay daraja kon saabixa comme ni muy amee ci ci xale yi amee ko ci jàngalekat yi amee ko ci daara yi incha allah du tee nag kenn ku ne la nga doon def ci sa musaabaxa kenn du la ko danañ la ca jàppale waaye ñu créé benn musaabaxa boo xam ni ñun ñëpp koy bokk. defal leen tamit turbine ci média yi ci journaux yi ci lépp. ñu di ci wax baax baaxi daara ndax léegi dafa dem ba nga xam ne nii saa yoo gisee ci télé saa yoo gisee ci journal saa yoo gisee ci rajo rek ñu tudd daara rek dañuy seet ñaawteef ba rek ñu génne ko waaye war nañ di génne. li baax ci daara ndax alxuraan la ñuy wax naa si naasi husnan loolu tamit ñu fexe ko ba ba loolu taxaw ñu fexe tamit ba def benn diplôme boo xam ne dañ koy reconnaître ñun ñëpp kenn ku ne fa nga taree alxuraan bañ nangu ko soo bëggee nga ñëw mu am diplôme boo xam ne dañuy ñëw ñu ay boroomi xam-xam déglu la déglu la jox la diplôme boo xam ne day nekk universel boo xam ne foo ko tàllale ñu xam ne yow mi mokkal nga alxuraan ëllëg boo war a ubbi daara tamit nga mën a taxawal loolu ndax tamit ci ni liggéey bi amee noonu la ko Serigne Abdou waxee léegi ñoo xam ne nii dañuy dugg ci métier bi di ci wut xaalis ñoo ñooñu lay wax ne nañu wuti xaalis feneen waaye nag bu fekkee jàng nañ ba am seen diplôme kenn du leen jaawale buñ paree nag. ñu mettre benn place benn centre d'accueil boo xam ne ni xale orphelin yi danañ leen fa mën di yóbbu ndax kat suñ mbokk ahlul kitaab yi ñu ngi ñuy gagné ci coté boobu xale yi nga xam ne ni ay doomu jullit lañ ñu leen di abandonné ñu jël leen yóbbu leen yàllaa xam ëllëg la ñuy done sëriñ bi daal loolu mooy loolu laa bëggoon a fii ah li ci des nag mooy programme bi nga xam ne nii moom mooy Kaolack ñun ñëpp ko bokk muy ñett rek muy benn bi mooy setal suqali ak sàmm setal bi mooy an mooy an nasaafatu an nasaafatu min al iman bi moom man maa ko jële rek ci li ilaa fi Qurayshin bi alquran di wax bu falyabudu rabba hasal bayt lasi atamahu min juuxan wa amanahu min xawfin kon doomu aadama bu amee économie am baax rek dana mën a jàmm yàlla dana mën a am sécurité beneen bi mooy riayat mooy sàmm sàmm kullukum raayin wa kullukum masulan an raayatihi loolu programme bi gudd na danañ ko def ci ay journal ñépp ñu yóbbul leen ko waaye nag li ñu bëgg rek leeral ko mooy wutuñu mbir mi pour post politique wutuñu pour dara dañoo jàpp ne ay nitu daara lañ daaraa ñu yar te ci dëkk bi lañ bokk te suñ bokkee ci dëkk bi nag ëllëg war nañoo mën a taxaw laaj dëkk bi ëllëg tamit ñu defaral dëkk bi defaral ñëpp ñoo xam ne nii dëkk bi dañ leen ñor ndax tamit ah, ñëpp xam nañ ne Kaolack barkee ngi fi Kaolack nit ñu baax ñu baax ñëpp dañ koo tànn def ko Alaaji Ibrahima Niass Baye dem na ba Chine. di wax Kaolack di wax Kaolack ndax man foofu laa njëkk gisee am mbindam mu bind ci El Hadj Ibrahima Niass al Kaolack yi di ko signé te man dama daan gis ñu bari seenu sant la ñuy signé moom muy signé Alaaji Ibrahima Sarr Kawlax yi noonu la ko àndal woon ak sëñ Bachir Mbacke ànd ko kilifa yëpp kon nag tey jii jotaay bi rek wane na ñëpp a ngi fi sëriñu daara yaa ngi fi tariqa yëpp a ngi fi ñëpp ngi fi jigéen ñi maa ngi leen di gërëm leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu